jaajëf tey sama gay bo man la Mister Shake man la Mister Shake ñew euh gennat ni tay ci euh, mercredi 25 pour wax ci corona bi li am Senegal. Lima gis demba vraiment man daf ma jaaxal parce que dëkk polisi. xamne policier yi lu leen neex lañuy def japp nit ñi di door. ngir lan parce que yow dañ na la bul génn ci corona bul génn ci corona bi moo leen jox licence ñu japp nit ñi di dóor vraiment man man man man li jaaxal na ma quoi parce que gis na Touba ay vidéo du ñu japp ay nit di leen dóor loolu du deug du yoon déjà Sénégal cas yi dafay bëriwul bëri bu ñuy wax Sénégal warul nek un état policier man Macky Sall xam nga mom la voter waye li mom Amnesty International Amnesty International war ci wax organisation des droits de l'homme war ci wax c'est vrai que dañu génn benn loi ne bu kenn génn waaye loi bi waxul bu nit génnee dañ koy dóor police kay liñ ci xam moy bo génnee bo violé loi dañ la wara japp lolou d'accord nañ ci bo bo violé loi ñu japp la mais instant yi mu ñemewuñu kenn ndax corona waaw gaay yi ngi Brooklyn xam nga bu si kanamee dinaa defal benn live mais xool leen fii xool leen fii ah gis ñu ngi noonu ambulance yi c'est que fii tamit dañu wax nit ñi mais ku mu neex doxantu ku mu neex doxantu fii amul ay nu am quarantaine wala ay couvre-feu couvre-feu du yoon Macky Sall waru profité ci gars yi comprendre nga waru profité ci lii ngir indi ben genre état policier parce que affaire bi lolou len drôle ñun Macky Sall mooy suñu président ñun mom lañ voté waye buñu gissé dérapage de la part des policiers ay policiers yo xamné ne nam namm nit wala ñom dañoo tiit yaakaar ne dañuy dé kenn xamul lan la mais en tout cas li mom dafa upp japp ay nit Touba di dóor sénégalais ñu bari dañoo sonn gis naa ci ay taximan vraiment dañoo sonn bu ñu liggéeyul du ñu lekk bu ñu liggéeyul du ñu lekk lu tax ñuy def ay couvre-feu c'est pas nécessaire da ngay gën a merloo population bi te dinaa leen wax benn affaire gis nga couvre-feu bii bu bu teelul dañ dina indil Macky Sall vrai vrai vrai problème ndax bu ñëwee ba ci biir nit ñi gën a xiif gën a sonn nekk sa biir kër doo def dara loolu kenn mënu ko maa ngi liir léegi benn cas benn colombien ak benn jëkkëram américaine dem bi vacances nekk ci hôtel bi ñu téye leen fa ne doo leen génn parce que Amérique ngeen jóge te Amérique dafa am ay virus xale bi jigéen bi waaye mu ngi commencé seet jigéen bi daal di dëgër bopp daal di génn xam nga ba mu génnee nag ci lañ ko jàpp ci lañ ko jàpp te léegi mu ngi nii mën nañ ko tëj quatre ans gis nga loolu gars yi ñu profité ci affaire bi pour terroriser nit ñi yedde état yi. xam nga pour terroriser nit ñi policiers yi mel ne dañuy entraînement ci nit ñi lii yoboo ngeen def attention yéen waa Sénégal def leen attention te xam ne lii policiers dañuy entraînement parce que li tax ma ne dañuy entraînement bu doon sax benn policier ñaari policier mais dafa ay policiers yu bëri dafa mel ne dañ leen jox ordre dafa mel ne dañ leen jox ordre ne leen sama gars yi ku génn rek dóor leen nañu sonn parce que mënuñu leen jàpp parce que bu ñu leen jàppee yóbbu leen euh, dugal leen ci prison bi wala rëbës foofu lay gën a garaawee ndax foofu ku ci am corona dina ko wàll ñëpp kon mënuñu jàpp kenn leen rek lu ñu def dóor loolu nag du solution waaw ay nit nga jàpp leen dóor na ñoo xam ne xamuñu sax ni couvre-feu na ñoo xam ne duñ ko xam mais nee leen rek eh ñibbi leen mais jàpp ay nit di leen dóor man damaa d'accordul sax déjà ci couvre-feu bi man ci boppam laa njëkk condamné du yoon nañ ko dindi nañ ko dindi couvre-feu bi nit ñu moytu nit ñu moytu bu ñu waree a tëj yenn affaire yi ñu tëj ko tëj nañ ay juma ah waaw fii mi ngi ni mais nit ñaa ngi liggéey man damay ñaan yàlla dem liggéey semaine bi xam nga mais affaire dafa am affaire yoo xam ne il mu tijji transport dafa war a mais doo ne huit heures du daw huit am ah, nu mu tuddati euh, Euh, taxi di daw mais imaginez ku war a liggéey ci liggéey essentiel par exemple hôpital nga wàcc di dox ci mbedd bi policier yi ne la looy def fii alors que yow ci hôpital nga liggéey wàcc huit heures ah ñu jàpp la dóor la may wax wax dëgg vraiment lii du yoon benn vidéo bu xam ne naa ci gën a wax.